dajale fii ci suba si mooy le fait que état ba léegi accords yi ñu signé ak euh, SUTSAS ànd gësam respecté wu ko bi ci des mooy xale yi pendant deux mois deux mois j'ai dit fayuñu leen seen salaire te dañoo signé un ak benn bailleur bailleur bi woo nañu ko mu ne état viralagu ko je pense que ne bu gañee marché su gañee marché day day dafa war a fay ba koroog état di ko virer xale yi seen yoon nekkul ci diggante moom ak état dafa war a respecter état dafa war a respecter li mu signé contrat bi mu signé ak ak euh, ak état bi ci des mooy boog ba léegi pendant quatre mois këppi contrat bi euh, jotuñu ci ba tey boo waxee ñu ne la pareeguñu ci moo mënee gis nga noo mënee gis nga signé contrat. boog ba léegi jotoo ci kopi contrat yi ñu naan la contrat bi pareegul au moment ñu taxaw naan xëyub ndaw ñu xëyub ndaw ñu xëyub ndaw ñu état signé na état signé na xëyub ndaw ñu pour ndaw ñu mën a mën a liggéey région bi nu nekk moom la ministre Dame Diop xale yi mënunoo jot seen salaire le directeur des emplois nekk fii euh, dans la région de Diourbel xale yi mënunoo jot seen i seeni seeni seen i seen i salaire mois ak tabaski bii di ñëw ñi fi nekk kilifa yi fi nekk boog ba léegi ñoom ñëpp resevoir nañ seen salaire xale yi kenn recevoirul seen salaire te kenn waxu ci kenn defu ci c'est pas normal c'est pas normal bii yoon bii nag bii nag tey dinañ sitting lundi dinañu bàyyi mu jàll mardi ñu toog déglu leen après dinañ xool nag yan lañ yan mesure la ñuy jël pour xale yi ñu fay leen seen salaire mais ñoom mënuñu nekk ci région bi le ministre des emplois nekk ci région bi le directeur des emplois nekk ci région bi mënunoo fay xale yi seen salaire c'est inacceptable munta nekk bi ci des mooy ñu wax état dafa seetaan centre de sante Mbacké parce que maternité bële léegi bu ñu la waxee ne def nañ ci quatre-vingt-douze millions munta nekk c'est impossible ñu delloo ci ay zeng bunt yi yàgg man ba ñu ba bunt yi de am wala fenêtre yi di am sax man juddooguma c'est pas normal bon à par problème mu salaire yi bu ñu wanee problème mu salaire war nañ leen mën a fay seen salaire loolu problème majeur la parce que ñoo ngi leen di xokkatal di leen teg ay yoo xam ne nii kenn jaaduwul bi ci des mooy problème mu maternité ba lee xam ne xale nit ñi suñuy am doom da ngay dégg seen i yuuxu même boo leen gisul da ngay dégg yuuxu yi ñuy yuuxu c'est pas normal zinc ya fa nekkoon leen ci delloo jënd yeneen zinc delloo ci bunt ya fa nekkoon lañ ko kon ana 92 millions yi fan lañ ko dugal ana entrepreneur bu ko defar ana lex maire Mbàkke mérité wunu lii Mbàkke mérité nañ plus bi ci des mooy rajo bi nga xam ne nii boog ba léegi ba nu tabaxee bâtiment ba léegi xanaa bâtiment bi léegi mu xar ana rajo bâtiment kese loon gis gis suñu rajo population Mbàkke mérité wunu lii mérité nañ plus plus 92 millions dañuy sàkk ñu auditer l' entrepreneur bi nga xam moo fi jóge ak monsieur le maire parce que Mbàkke mérité nañ plus ginnaaw bu ñu waxee ci salaire xale yi ba pare xale yi dañ leen war a fay seen salaire parce que tabaski baa ngi ñëw ñoom ñëpp ay père de famille ay mère de famille lañ contractuel yi nga xam ne nii fayagul leen ba tey état respecté wul loolu parce que contractuel yi des na munoo koo xayma ay benn benn la fay bu ñu jëlee quatre-vingt-dix pour cent ci département bi contractuel yi li ñu signé woon ak état yi respecté wuñu ko respecté wuñu ko tey danoo décréter un un sitting ñu tàmbali ko sunu secrétaire général national Mballo Dia ak lépp képp koo xam ne nii dirigeant nga nekk ci région bi muy Matar Ndiaye ak euh, Tamsir Diagne mais centre de santé bi laay wax courant bi mënul nekk ci ay jafejafe ñu toog di ko seetaan maa ngi doon alerte la fois passée maa ngi doon alerte pour maternité bi pour kii bi courant bi hôpital bi amu dafa am problème à chaque fois mu am problème wala muy lakk wala mu am court circuit bu bëggul ni nag li am Linguère am fi wala li am Tivaouane am fi ni contrat yi nga xam ne monsieur le maire arrêté na ko boog ba léegi renouveler gul contrat xale yi te dafa war a renouveler seen contrat